président ambulance maa ngi lay nuyu nga nekk président 100 euh, cent Guédiawaye nekk président axlu làmb Sénégal rawatina nga nekk tamit directeur technique bu écurie Nord Fadam ndombal tànk boobu loolu lan moo la ko may. Euh, alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed euh, ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen baalu ak yéen waa wasaare làmb wax dëgg neex yàlla seen liggéey ñu ngi koy teewlu. mu ngi rafet yal na yàlla taxawu leen ah loolu moom sant yàlla rek la euh, ndomboy tànk yooyu xam nga ku nekk ci mbir nga nangu faa doon taalibe bu la fa sëriñ fekkee euh, jomb la ñun làmb dañ ko tarbiyu ba tey li ñu ci fekk fekkuñu ci ñuy ñaan yàlla rek suñu borom xeeb dolli te lépp luñ ci am wala ñu. nar ko cee am rek nañ ko bokk ak askan wi waaw loolu. nekk ci guddi gu bës setagul parce que bu ñu nee président ambulance moo nekk directeur technique bu école de lutte euh, Mor Fadam tey mbër yi ci bari am combat nekk ci écurie bi nan nga leen waajee ak ak ban façon méthode nga fas yéene indi ci écurie bi ba écurie bi toll fi nga xamante ne foofu la ko suñu papa Mor bàyyi woon. waaw mais loolu du perfection parce que man benn guddi dama benn saison dama doon jël 37 tournois. benn saison dama doon jël 37 tournois benn saison kon donc ay combat yu ay benn ñaar combat ñetti combat yi dool du perfection euh, dañuy ñaan yàlla rek suñu borom mottali ñu may ñu wér ak wérle ba li ñu li ñu bëgg yëpp ñu àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin mais du perfection daal. guy nan ngeen koy waajal. mais xam nga guy gi fi mu toll nii euh, champion la boo xamante ne nii boo ko waxee ñëpp xam nañ kan mooy guy gi kooku préparé ko jafewul athlète la xam na li koy may ndam xam na li koy xañ ndam ay complément la rek pour ñun ñu complété ko accompagner ko ci yàlla suñu borom may ko ndam mais amul lenn loo xamante ne ni lu war a bees la ci moom wala pression bu koy dal ci ci combat parce que wane na li mu war a wane ba ñëpp xam ne champion la. nitu làmb bu ñu la indiloon ñoom ñaar teg leen yoroo ci benn xale yoroo guy gi yoroo rëg-rëg guy gi lan la war a mën a moytu ci rëg-rëg boo man guy gi man gisuma lu war a mun a moytu ci rëg-rëg parce que ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ guy gi du mag dafa jiitu rëg-rëg ci bëre dóor mais ñoom ñaar magantewuñ ñoo yem ay doole rëg-rëg bu liggéeyee doole guy gi liggéeyee doole ñoom ñaar mu nekk cinquante cinquante bu boobaa ki war a am ndam jour boobu yàlla na nekk guy gi doonte rëg-rëg sama sama booy la mais kii maa ko yor su ma sañoon mooy daan. ma lay jaajëfal baax a baax a baax ndax lu ci nag. ñu ngi leen di kontaanee bu baax yéen waa wasaare di leen ñaanal yàlla. wax dëgg neex yàlla ni ngeen taxawoo làmb yàlla na leen yàlla taxawoo noonu ci barke weeru koor bi kontaan nañ ci yéen trop jërëjëf.